nous allons enchaîner en Wolof. Mais s'il vous plaît, même ceux qui ne sont pas intéressés par le Wolof, laissez au micro. Comme ça, on va gagner beaucoup plus de temps. OK donc ñu wax euh, ñu leen di jaajëfal ci seen teew bi euh, conférence de presse léegi euh, coach Aliou Cissé wax na déjà en français bu ngeen amee ay laaj ngeen di laaj en Wolof pratiquement mu mën kon jërëjëf tey moo nekkoon seen tàggu bu njëkk fii ci Thiès Stade Lat Dior mënoon am nag ni mën nga gisee produit d' abord waaye tamit mën nga gisee Stade Lat Dior beneen bi mooy aussi gis na moom ci tàggu bi ku mel ni maanaam Ndiaye ak chef bi dañuy mel ñooñu defar. waaw euh, di nga sant bu baax euh, Pape Alioune ak euh, ak Cheikh Tidiane Ndoye mën naa wax ni dara dara préféré rek bàyyi leen ñu daw autour du terrain reposer wu parce que chef dafa am béquille ci ci cuisseau Pape Alioune dimanche la joué donc on a préféré vraiment ñu bàyyi ko mu reposer wu. Euh, pelouse bi mën naa wax ni que pelouse bi baax na il y a trois semaines ñëwoon naa fi. Euh, état police bi ni ma ko gisoon mën naa wax ni sax état stade bi ni ma ko gisee woon ak tey du lu ma fi fekk vraiment wane nañ que ñan ñooy fii liggéey liggéey nañ liggéey bu set set wecc liggéey bu rafet donc euh, outil bu rafet la foog naa tey Sénégal am na outil bu mel nii ñu permettre vraiment ñu mën a pratiquer football bu baax a baax di sant vraiment ñan ñoo fi liggéey parce que liggéey bi ñu fi def rek vraiment rafet na. waaw te mën naa wax ni ko waa Thiès ñoo aaye d'habitude euh, match yi équipe nationale lu yëpp Dakar nañ koy footballé tey fii nañ koy fii nañ ko fas yéene joué Thiès. di ñaan waa Thiès yëpp ñu mobiliser ci ginnaaw équipe nationale bi waaw dimanche seen bés la kon nañu wane seen bopp waaw bokk ci équipe bi jàppale équipe bi encourager équipe bi vraiment pousser équipe bi pour que ndam bi ñuy war a jëlaat may ñu ko incha allah. voilà Aliou ne yaa ngi am ay bari na ci ñoo xam ne nii dañ nañu nañu yaakaare woon équipe bi noonu wala fa ñu yaakaaree woon xale yi egg euh, wane ci xarañte ba léegi ngi ko a bi ay góor yoo xam ne nii ñoo ngi teg ñoo ngi teg fi ñu nekk Aliou par problème sa sa sa projet sa mission sa yéene mu dëppoo ak ñoom lu ñu mën wala ñoom lu li li nga bëgg nit ñi nit ñi bëgg yow di joué football léger boobu passage am yow di ni man football bu rafet boobu wala loolu yow daf laa soxla li ngay ut rek mooy daan. waaw mais ñun ay compétiteur lañu ñun lu ñu bëgg mooy daan lu ñu bëgg mooy gagné euh, te foog naa sportif de haut niveau boo leen gis lu ko gënal mooy mu gagné ak manière bi tamit loolu lu am solo la mais. je crois que football tamit ay statistiques la tey boo leen xoolee bi ñu nekkee fii ba léegi 41 match lañ joué gagné nañ dugal nañ pratiquement 65 buts encaissé 25 buts ñu perdre 5 matchs dont 4 matchs amicaux benn match officiel nañ perdre mooy match contre Colombie kon foofu nekk numéro 1 en Afrique 2016 2017 2018. kon loolu foog naa ko mu doyul xam nga lu ma doyul ci encore léegi nag bu ñu mënee jouer pour def spectacle ah, bu boobaa dinaa jouer pour def spectacle mais je crois que liñ ma assigné mooy yóbbu équipe bi ci kanam luñ ma assigné mooy gagner luñ ma assigné mooy travailler pour. constituer équipe boo xam ne mën na gagner coupe d'Afrique mais au la sax coupe d'Afrique incha allah am nañu yaakaar ni que si liggéey bi ñuy def depuis quatre ans mën nañ ci gagner coupe du monde incha allah bi ma doon jël équipe bi quatre ans laa signé donc ci processus boobu lañ nekk signé wu ma deux ans donc mosuma bëgg a signé deux ans parce que xam naa ni que pour tabax équipe il faut que nekk ci processus boobu ci processus boobu nag lañ nekk xëy na gars yi ñoo mais incha allah lu ma gëm mooy que ñu ngi ci yoon bu baax bi di ñaan yàlla rek vraiment fu ñu bëgg jëm yàlla may ñu ko mais sama xalaat mooy que bu ñu sànni lépp foog naa li ñuy def ah xëy na gagné guñu ko mais li ñuy def foog naa quand même ah doy na valo euh, war na war nañ ko valoriser un peu. dans tes pro ci euh, say kàddu daal daal di souvent ngay da ngay recherché un grand lutteur un tueur parce que man gis nañ ne ñoo gën la jël Sadio en fait remplacé ko dans l'axe mu def ay performances est-ce que loolu jox la mhm. euh, ay idée avec l'équipe nationale. non Sadio Mané pour man excentré gauche la excentré droit du attaquant de pointe léegi nag Jurgen Klopp joué na joué na loolu foofu loolu Jurgen Klopp la mais góobu ma ni que Klopp Euh, dans la durée dina continuer di jouer loo Sadio Mané foofu yàgg naa leen ko wax ne naa leen ni Sadio Mané euh, boo xam ne ne fépp mën na fa jouer euh, débat bi fii indiwoon nañ ko fii quelque temps fële ci ginnaaw yenn journalistes yi d'ailleurs naan Sadio dañ ko war a jouer meneur de jeu ñu ne lu tax ma koy jouer loo ci côté gauche bi ñu ne lu tax ma koy jouer loo ci côté droit bi tey ñu dem ñu gis club bi ñu ngi koy jouer loo attaquant man kon coow lu wax leen nii rek ni que Sadio c'est un grand joueur et un grand joueur il est convaincu un grand joueur mën na jouer à gauche mën na jouer à droite amul ci moom donc foog naa tey li muy wane ak équipe Liverpool bi wane na ni que il en tout cas des en tout cas ci ci àdduna si waaw di ko ñaanal rek di ko encourager parce que encouragement yooyu soxla na ko réew nañ fa seen am nañu seen star ñun Sadio mooy suñu star. donc dañ ko jàppale rek vraiment pour que li mu nekkee nii mu mën ko continuer ça fait équipe nationale bi vraiment mën jëm kanam. justement kon dafa mel ni discours bu loolu dafa gën a jàll sa bopp xam nga ni Sané Liverpool Liverpool dafa ñu dox ci Sénégal lan mooy problème est-ce que Sané euh, Mané Mané notamment Mané Sadio mën naa nekk leader technique équipe bi en même temps que mu joué euh, pour collectif équipe bi loolu dina am ci bari ñaareelu question bi mooy.

Sadio Mané bokk na si waaw gëstul statistique bu Sadio Mané ci équipe nationale di nga xam ni que lépp lu am importance sur les quatre dernières années lépp loo xam ne def nañ ko Sadio Mané est décisif donc mënuñu wax affaire du discours dañuy jaawale souvent équipe nationale ak club te pourtant du benn club am nga temps équipe nationale amoo temps Sadio Mané day ñëw quatre jours la def gis nga tey lundi newul entraînement suba ba nga ñëw mu ne nu mu tudd xëy na dafa soxla repos donc difficulté équipe nationale moo demee noonu mais mun naa wax ni que tey lépp lu ñu def comme résultat Sadio Mané a été décisif donc on peut pas dire que Sadio Mané pas décisif et que discours Klopp passe plus que discours Cissé li ma gëm mooy que man maa gën a jege Sadio Mané que Klopp lu mu ko jege parce que Sadio Mané dama bokk ak moom sénégalais laa muy sénégalais kon. mën naa wax ni que Allemagne am discours bu gën a jub sama discours waaw.